أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك ومجد وشرف على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حضرات السادة إخواني أخواتي في الله لله niyaabatan anil xalifati aqulu assalaamu aleykum wa taala wa barakaatu. waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi jullit yi bu ñu mustoo ci bakkan ak seytaane yàlla ci yàlla boole musal ñun ñëpp wax ji rek ci turu borom bu tedd te moo di bismillah di santati yàlla bu baax ci daje bi ñu may ñu dajewaat ndax defe naa dajewaat ngeen ca Ndakaaru mm-hmm. waaw. mbokk yëpp daje woon nañu usra bi daje woon nañu waxtaan ba pare mu dese rek jottali li nga xam ne moom la xalifa bi wax ni moo am incha allah ndax xew-xew bi ñu jublu kañ la ñu tëj boobu léegi julli wuñ ci. kañ la ci. ak ayit fi jaar korité tabaski ak yëpp tabaarakallaahu dañ ko aj lii ñu jublu lan la ci diini bidaa mustaxsan moom salaatu bu gën a dëgër kon waxtaan nañ ci ba pare ak kaaba gi sax màkk téere yi bind nañ ci lépp bind nañ ci waaye sëriñ def ni comme waxtaan waxtaanoon ngeen nañu yëg ni rek Tiwaawan du gàmm mhm. Tiwaawan du gàmm buñ demee ci téere yi bari na bindoon naa ko waaye daf ne woon nañ ko gàttal comme que waxtaanoon ngeen ba pare ci Dakar jàpp li ngeen di jàpp mooy Tiwaawan insha allah du gàmm yàlla ñu yàlla may nag fekkee nag ay at ci kanam muy at ci yokkute ak sutura ci barke Seydina Muhammad boo delloo ci téere yi di ci gis ngànt yu bari yoo xam ne kenn ku ci nekk mën nga cee sukkandiku ba du am te dañ ma def moo xoon sax wax dina yem foofu boo delloo ci alquran am na lu ci wax waaye boo demee ci médecine yi fi toog fas alu ahla dikri in kuntum la taalamun waaw te feebar la boo xam ne bii bari nañ ñoo xam ne ñu ngi dem di ko yóbbaale te xamul suñ koy dem kon nag sëriñ bi daal nee na dañu bàyyi insha allahu ba déwén buñ dee gàmm ñu gàmm insha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala